muy bëri na ku fi toog bi ngay génn sa kër tàggoo ne maa ngi dem jàng ya ma yaakaar ni kuy dem jàng ya dangay ngay dem pour jàng waaye yàlla na nga fa fekk ku mën a jàngale ndax Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum wax na ne jamono ji nit ñi ñu ngi daw di jëm ci diine waaye problème ba mooy kan lañ fay fekk yow mi tàggoone maa ngi dem ca jàng ya ki nga tàggu soo ñibbisee war na am fulla ni loo fa jàng xanaa su la ko laajee doone ay la fa sañ sañse su la ko laajee doone xaalis ba bari war nga ko wax lan nga fa jàng